المسألة السيد الروحي أخبر الروحي أن المساجد لله فلا تزورها لا يحل قل إنما يعبد مشاهد الله كما بالله ولا بالله قل له يجيبه قل من خلق تعب الذي أنا قل من أنا دم كل وطن يوم جمال فوق بدنا مبارك إسلام جب خلنا تعب إسلام إسلام الله في صف الله يجني اجتنبوا لله ولرسول إزالة أمر ويجيكم ولا جنة ndax da nga jëmul ci xam bu bokku ci yoon bu ko bokku ci seen taxé ak bokku ci islam ñaan loolu ñu koy rafet bu am na ak saxam di xam ne masala bi nga ni ni fi dafa war nekk bu fatah te du ko bokk loolu rek lii rek ko ko ñaan ak di sant mboolem ñu di sant ko téré ndax jàkka defuñ ko rek defal ko waaye li koy tuddal mooy ñi fay jóg kon nag ñu soñ ñëpp ci ñu mooy nañ war a tudd faman axtaanka faqad axtaanka kon dundee ko noonu te xam ne Sëriñ Tuuba woote ñu bépp mës a jël lislaam dara mës ko itteel lu ma lislaam lislaam jooju bu la woote nag yéen wusi bañee ba attali xam-xam bi sax ñoo ko tuddee waaye bi tuddee ko moom bu jëm ci yàlla ñoo ko tuddee xam ngeen ne sëriñ Tuubaa mboole wér bi ñoom alxaadiriya ak ak chaadiriya yëpp am na ci ñoom daanaka ko jox ba ci biir yoon parce que ay bari fàtte xam ngeen ne sëriñ bi joxoon na ko wér bi yëpp ba daan ko jox am na ci ñeneen ci yoo xam ne mën naa ko ci biir yoon yi ñoo xam ne ci ne joxoon na lépp ngir than